waaw si principe moom euh, ñun Horizon sans frontières euh, mënuñu d'accord ci expulsion parce que expulsion dafa nekk lu ñuy tuddee euh, violation des droits humains damay wax ni sax dafay poser des problématiques de dignité humaine parce que humiliation la humiliation jàpp nit ki di ko takk di ko expulser boo xoolee la fréquence ak la récurrence de ces expulsions de Sénégalais yi nga xam ne tey ñoo dëkk Allemagne euh, tey on pourrait se poser la question de savoir mais est-ce que dafa am accord entre le Sénégal et l'Allemagne ba nga xam ni tey ñu ngi expulser Sénégalais yi fa nekk parce que su accord amul euh, le Sénégal war na mën a sukkandiku ci les accords de Dublin pour éviter aussi mu am des tensions géopolitiques liées à ces expulsions je crois que war nañu mën a euh, faire avancer la réflexion pour que mu am des réformes du droit d'asile waaw parce que le critère pauvreté dama jàpp ni dañ ko intégrer dans les paramètres euh, d'élection